walaaqibatu lilmuttaqin wala udwaana illa ala alzalimin wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waliyu saalihin wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma baad ixwata al ahibba asalaamualeykum jamian wa wa barakaatu noo ngi nuyu mbokk yépp di ci jiital sunu soppe bu mag bii di docteur Sidi Yaxya ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu lefal ko cat defal ko tawfiq nasru yusuf defal ñu ko defal ko mbooleem jullit waaye may ñu ñun ñépp ñu dajawaat ca firdawsil aala maa annabiyina wa siddiqina wa suhadaai wa saalihin xasuna ulaika rafiqa dañuy dugg rek mubaashara ci fi ñu fekkoon cheikh bi nekkoon ci muy jafe-jafe yi ci néegu sëy yi moom mu jëloon ci lef wi nga xam ni mooy sabab yi dégg ngeen ni mu ko waxee jeexalu ko waaye yi ëpp solo tënk na ko yi ci des kenn ku nekk war naa xool boppam ci yi mu joxe ndax am na te lu nekk ci man ma jéem koo changer ndax am na yu nekkul ci man ma jéem a fexe mu nekk ci man ndax ñun risaala bi ñu yore dafa riche lool muy risaala yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu ñu ko doon taggee ku mën a fexe mu ne ci yow dawal gaaw waaye lu ci gën a rëy jikko nag amu ca ndax moom la ko yàlla taggee mooy li doktoor doon wax léegi defo yi nekk ci yow moo xam ngay góor ngay jigéen nga góor góorlu ba défaut yooyu deñ kon moom ginnaaw bu indee sabab yi nga xamante ni mooy jafe-jafe sëy yi man damay ñëw rekk ci li ñuy tuddee ilaaj yi mooy nan la ñuy def ba yooya saafaraw tomb la boo xam ni du ñàkk mu am lu mu wax mu tuddaat ko am lu ma ca teg loolu pour lan la ngir ñu xam ni tomb yi ñoo duggante ndax ku wax feebar wax faj ku wax faj wax feebar kon ñoom ñaar euh, munuñu tàqali ko ñaata boroom kër <clears throat> ñu denc soxna ñooy jàmbat jafe-jafe ci seeni soxna ngir ñàkk xam bu soxna yi ñàkk a xam seen daraja bu yàlla def ci ñoom wala ñàkk xam bu soxna yi ñàkk xam xiwaama bu leen yàlla jox mooy kilifteef bi yàlla jox góor bari na góor ñu bari dañu ko ñàkk ci seen kër yi xëy na ñoom sabab lañ ci ñàkk ga waaye soxna yi dinañu fekk ñoo xam ni danoo bindoo ñoo xam ni kenn mënu leen yilif rek loolu day faral di am léeg-léeg jigéen nekk koo xam ni du mën a delloo boroom këram àqam boroom këram di guux naqar guddeeg bëccëg jafe-jafe bu ne nga xamoon ko démb muy ko sawar lool yëngu lool taaru lool tey mu nekk ci sëy balaa at nga gis ko mu mel ni kuy doog a génne hôpital fekk dara defu ko lu dul naqar buy ronger xol bi naqar buy ronger xol bi am na ci ñoo xam ne sax seen naqar ndeysaan dafa àgg ci dañuy gaaw a béjjaaw dañuy gaaw a béjjaaw ndax problème dina àgg ci nit foo xam ni kawar gi dootul suubu ci ñuul waaye day weex lan moo ko teg ay xalaat xalaat loo mënta regle loolu dal na yonent bi biñ koy laaj yaa Aysa ne ko lan moo tax nga commencé béjjaaw te yow doo mag lu mu ko ca tegal sayyabat nii huudu waa xawaatuwaa beneen bi bokk na ci <coughs> góor ñu bari dañoo naan ay kaasi naqar ci biir kër ya di dund fitna di dund jafe-jafe dem ba ñemewuñu dellu ci seen kër yi kër gi nga xamante ni danga ko amoon pour di fa noppaloo kër googu nekkatul refuge mais léegi kër gi ngay daw yow ci koo xam ni boo doon liggéey boo wàccee kër ga nga war a njëkk a dem war faa fekk koo xamante ni dalay dalal ndax jigéen ruulam mooy dalal góor loolu la boroom borom bi tas li nu ilayha su fekkee nag boo liggéeyee yàkkamti woo dem kër ga yaa ngi bëgg a tourner jaar terrain football soo paree yaa ngi bëgg a jaar fële gis gaa yi dem naa ni ataaya fekk dara du sabab bi lu dul ka nga fay fekk ki la waroon a noppal dalal la boo accès moo lay njëkk a sóobaat ci problème damay faral di nettali toujours suñu benn grand dafa mës wax jabar ji féetee mënuma yendoo pardon monsieur bëgg fanaanoo pardon madame mënuma ko ku ne na dem parce que nekk ci service bu liggéey ba sonn ñëw bugg fee fekk jigéen boo xamante ni wej wej wej wej bu yàggee ah, du baax ci yow waaye it noonu mu mel ci góor noonu la mel ci jigéen ñu bari tey bëri na jigéen ñoo xam ne dañuy dox ci mbedd yi nga yërëm leen du ñu xam lu ñuy wax parce que dañoo am jom dañoo def ci ñoom jom def ci ñoom mbaax ba tax na ñu jàpp ni du ñu jël leketal fay du ñu jël ndabal fay kon xam nga ni danañu nekk ci kër ga waaye nekk ak góor goo xam ne amul benn yëg-yëg ci soxna si xeeb ko lool yab ko lool toroxal ko lool sa première kàddoog sa jabar mooy yuuxu ko fet sey xaw ba mën a àgg sax ci àgg ci way juram ci foo xamante ni musiba la ñaata góor a mel noonu am na góor ñoo xam ni seen jabar dañu leen ragal a ragal ba bu ñu ñëwee ñoom ci kaso la ñuy nekk ba bu seen jëkkër di xëy rawatina mu am doom mu am doom googu góor nag moom lañuy tuddee gaynde kër xaram pénc bu génnee ci biti moo gën a baax ku mu waxal walla baax nga dégg ñu naan non eh Mouhamad kii ku baax la bu dee jigéen ñi kii il est gentil waaw baaxal ko te bu dee sëmm ci kër gi jabaram tiit du ko ñemee wax dara am na góor ñoo xam ne doo ñëw mukk fekk ñu toog seen jabar toog seen wet parce que mayuñ leen ko am na jigéen ñoo xam ne doo ñëw mukk fekk mook jëkkëram ñu am benn alaaka bu doy waar bi parce que jëkkëram mayut ko te lii ma ko xañ ma ngi koy maye ca biti ñu ko moomut dem ba àgg ci poosam mi ngi ko koy xañ loolu nag mbokk yi feebar la buy dal jigéen ñu bëri su dalee góor feebar la mais bu dalee jigéen lay gën a metti parce que daf koy indil misère day dem ba jigéen ji ay moroomam danañ ko xeeb day dem ba day mel ni ku dof dootul ànd ak xelam parce que moom day dem ba naan man sama dund gi dee moo ko gën nit bu demee ba ni sama dund dee ko gën mi ngi ci jahannam yàlla na ci yàlla musal problème yooyu mbokk yi ku nekk xam na ne ci biir néegu sëy du ñàkk jafe-jafe waaye am na ca yoo xam ne yu ñu mën a faj la mu gaaw te la koy faj mooy góor gi toog jàngataat boppam jigéen ji toog jàngataat boppam ñu jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko seen kanam ku góor ki toog xool nan la yonent bi meloon ak waa këram ndax yonent bi dafa diisoon gan te loolu xam nga ni amul ndax da doon kaf ak waa këram waa kuy kafak waa këram ba àgg ci ci mbedd di course ak sa soxna mais kooku kooku fa la ubbeeku yem ndax kenn ci ñun mës na koo isee essayé billaahi aleykum kan moo ko mës a fii jekk rek ne soxna si génneel ñu ñu ñu course génn ci biti li ngay njëkk sóor mooy ñun dafa bokk ci suñuy feebar mooy góor dafa war a dëgër da ngay daje kenn mu ne booy yaa ñàkk fayda waaye ngay njëkkante sa jabar ne <laughs> loolu ngay njëkk a jàngee ci moom kan tey jii ci ñun muy jikki rek boot soxnaam loolu moom defe naa ni indo yi lañ ko bàyyee ñoo ko moom loolu amul ah ah sama waa ji na bañu boot de waaye nag am du ñëpp lañ mën a boot mën na dëgg la du ñëpp lañ mën a boot mais ki nga mën a boot boot ko ki nga mënta boot nga jëm ki nga mën a am na koo xam ne moom boo ko jéemee boot ba moytu moom nga bootu waaw mais nga wan ko ni bëgg naa laa boot mais nag malheureusement mënu ma <laughs> waaw mais boo ko mënul boot nga bësal ko yaram bi mu remplacer boot bi kenn ku nekk ci góor a jigéen dafa bëgg këram neex yàlla ñu yàlla may kër yu neex wallahi kër dina neex neex goo xamante ne foo toll da ngay da ngay nekk foo toll sa kër ngay ñëw soxna yi dañu lay yàkkamte ni ñu lay yàkkamtee nag mooy tax ñu am courage u préparer la mais ni ñu lay ñàkk a yàkkamtee moo leen di déggute ba dootuñ la sentir wallahi bëri na jigéen ñoo xam ni bu ñuy doog a dugg ci sëy fu ne lañuy dem marché asalem H&M, marché tilien lu ñu gis ci ay fer jënd lu ñu gis lépp dañuy def pour neexal kër mais boo fi fekkee góor gox ñaar ba mu ne la ah oh, nooy def li nga bëggoon dootoo ko mun dangay dem ba valise am lañu ko dénkoon indil ko ko fa la ko bàyyi parce que yi mu waroon jël pour bégalee ko jëkkëram dafa fekk ni jëkkëram nekk góor gu jafe yàlla nañ ci yàlla musal beneen bi góor dina am jabar nekk góoru romance koo xamante ndeysaan dafa bëgg jabar boo xam ne bu ubbiiku di kaf moom mais fekk jigéen joo xamante ni dafa diis bokk na ci nag gàkk bi gën a rëy ci jigéen mooy diis diis du alalu jigéen warul diis ku ñuy boot di la yenu di la nabb nabee boo diisee kenn du la boot balaa nga koo weddi peeseel trente kilo kii vingt kilo nga ñëw peese quatre-vingt-dix kilos ku nekk nu ñu ne ñu la sa boot xawma ma kuy raw de waaye borom quatre-vingt-dix kilos moom du jiitu lu koy indi mooy diis diis nag ci ñàkk yar lay jóge ak amee ay shayatin jigéen bu ñàkkee yar rek day diis mbokk yi jafe-jafe yooyu yëpp di indi ci biir sëy fitna bokk na ci laytaay bi gën a rëy mooy aljahlu bil xayaati zawjiya mooy réer gu ñuy réeree dundiin ci biir sëy ni jigéen di mokkee ci sëy noonu la góor war a mokkee góor dafa war a mokk góor dafa war a joŋe mais du ñu bàyyee joŋe jigéen ñi rek cest jigéen ñi ci côtéem dafa am nu mu war a mokkee waaye góor gi ci côtéem oustaz wax na ko léegi bokk na ci joŋel góor ci kër mooy ñeme sa poos mooy ñeme sa poos ñeme sa poos tekkiwul ni awma mais wallahi di nga yëkkati juróomi dërëm jox ko soxna su mu jëlee ko kontante fierté parce que xam na ni li nga am nga def mais léeg-léeg nga joxe junni sa jabar di ko jël di la ciipatu parce que xam na ni am nga lu ko ëpp mais mënoo ko kon góor fi muy njëkk a tàggatee boppam mooy joxe suñu benn góor nee na saa bu ñëwee ngénte ñu ne ko góor la rek tiit na ñu ne ko lan moo la tiita mën a xam naa ni dafa nar a dund di xeex ba dee mm-hmm. loolu mooy góor dund di xeex ba dee mooy sama soxna man lañ ko war parce que dañ maa may ngay wax booy takk jabar da nga naan dañu may may kon ki ñu la may nga dindi kilifteefu ndeyam ak baayam yaa war a remplacer ñaar ñooñee te xam nga ni ndeyam ci wàllu colam wàllu dàllam wàllu taar-taaru biteem ndeyam a ko yoroon nga ni yaay ji léegi doyatoo ma ci baal ma jël ko yaa ji na la kon lépp lu ma doon def fexe ko koo defal moo tax biir sëy col bokk ci lii feeñ ci biti bokku ci loolu la ko yaayam doon defal li ci biti te mooy ruux bi dund yëg papa ko doon def nga ni papa ji baal ma remplacer la ci kon boo ko jëlee da koo war a dundal jox ko fu mu dëkk bi ci gën a doy waar nag nga wëlbati ko nag tiim ko te mel ni mbaxana mais doo ko tiim ak diis danga koy tiim te mel ni mbaxana mbokk yi bokk na ci ñu xam ni sëy dafa séddalikoo ci góor ak jigéen ci àq yi am na lu góor am am na lu jigéen am ñoom ñaar am na lu ñu bokk bokk na ca bu ñu bëggee dugg ci sëy mu réussir nañu làmbaayoo malaanam muñ muy góor ak jigéen rawatina nag góor rawatina góor muñ mbokk yi muñ yore kër ku dul muñ doo kër këri kon muñ il faut leçon boobu ñu dem di ko jàng fu ñu toll muñ dafa yóbbu li ñu tuddee grandeuru góor góor gi la dàq muñ moo la ëpp grandeur góor gi la dàq muñ moo ëpp mujj góor gi la dàq muñ moo la ëpp ay jabar yu baax beneen bi pour nga muñ yow góor il faut nga moytu dàggasante mbokk yi am na góor ñoo xam ni wax dëgg yàlla dangay xool nga ni ban genre góor lañ. dàggasante or góoru wat bang am na góor ñoo xam ne xaaruñu lu dul soxla sa ne wii mu ne waa wii waa wii waa fu mu le ko rek nga ko ko góor du mel noonu tànqamlu jéglale jéggale foofu la la sa jabar di nawe toujours muy defi bêtise ngay jéggale di jéllale dangay génn mu toog ci néegam di jooy nit dina ko wax dara ci jëkkëram xelam ne ko du dëgg bul xaar mukk sa soxna gërëm la bindowul noonu jigéen balaa gërëm jëkkër ñetti fanu bàmmeel ci la jigéen di yëg lan mooy darajay jëkkër yàlla buñ ko gaaw a xam bari na jigéen ñoo xam ni bi seen jëkkër gaañoo ñetti fan ca guddi ga danañ jooy jooy yoo xam ne duñu gis mukk leen di noppil parce que dañuy doog a xalaat ni ndeke ñu ngi doog a ñàkk la yoroon di ko fooyee tey lañuy ñuy doog a xam ni ñàkk nañ ko waaye am na ñoo xam xamante ci ay góor it ñetti fan ñu jooy seen jabar mooy premier jooy bi ñaareelu jooy bi ci jigéen mooy bis bu demee ba beneen góor donn ko beneen góor jël ko nga xam ni boroom këram gaañu na ci lay doog a raconté kan mooy jëkkëram ci la koy doog a xam ci la koy doog a def hmm. laay cay yàlla cay yàlla ci lay doog a xalaat xam ni ndeke ngand ma dem na foofu la koy xamee mais yow góor boo bëggee taxaw pour sa jabar xam yaay kan fa la dof tàmbale xuloog sa jabar ne ko respecté ma jox ma sama place déedéet place kenn du ko laaj da nga koy jëf ñu jox la ko foo fekk ku naan duma sa morom tardé na parce que kii biñ la koy may xam nañ ñi doo moroomam kon boo toogee ba naan ko duma sa morom mooy tardé nga est-ce que amul foo échoué ba àgg fii te foofu nga échoué dara mënu la ko may lu dul muñ koo xam ni dafa judd di tooñ yaru di tooñ màgg di tooñ nara di tooñ kii boo bëggee mu jub fit am mooy kan mooy jigéen koo xam ne lu ngeen jote yaa ko tooñ mais moytul ngeen di jote est-ce que xam nga ni saa boo joteeg sa jabar ku ñëw ku muy yedd yow lañuy yedd walla moom ah waaw koo xam ne lu ngeen jote ñu yedd la mais moytul ngeen jote jar la sax nga daw nga génn kër ga jëfi masala bi ñuy waxee xum yaa aba turab Ali naa Abi Talib bi muy daw di génn këram Fatima tax mu génn mais xoolal grandeur bi mu ci jële bi yonent bi ñuy xool situation bi dafa dem xool ko war ko ba ci biir jàkka ja fekk mu tëdd fa ba sikkim bi tooy yonent bi naa ko jógal comme yaa Aba Turab mu jóg mu di ko fompat sikkimu parce que xam nga ni loolooy grandeur góor mais bu ñu jotee yaay sonn man ak yow man nangam bu waxee nga wax danga xam ni maa la da nga na non déedéet mbokk loolu góor da koy jéggi gis nga buntu muñ nañ leen ci ubbi ngan di paragraphe kenn ku nekk ci ñun di ko jàng waaye jigéen ji daf ko war a jàng ndax bokk na ci li ñu koy njëkk a muuree ci kër ga mooy muñal sëy neexul wallaahi sëy neexul dañuy fexe bu neex mais neexut yow jigéen ji nga nar a génn sa néegu yaay sa kër baay fi nga nekkoon heure bu la neexee tëdd heure bu la neexee jóg tey nga ñëw ci kilifteefu koo xam ni lu mu bëgg ngay def loolu muñ rek moo la ci mën a dimbale bokk na ci nag ñaareelu gaafu jigéen mooy jigéen buy fàtte ak njigéene te lu bari nag dafa xew ci jamono ji jigéen ñu bari dañoo fàtte ak njigéene ñu baal ma nag mi ngi ëpp nag ci les femmes intellectuelles dañ naan dañ leen yab mais wallahi yabuñ leen dañuy faral di nettali tax ñun ñëpp min baa bi waxtaan ak yeewu ku nekk bàyyi xel moroomam ñu fi indi mais gis nga bëri na jigéen ju am jafe-jafe ci sëyam mooy dafa fàtte ni jigéen la jigéen dañuy julli walla jigéen bu fàtte ni jigéen la rek mooy du neex a yore mooy jigéen boo xam dana woddu dana sol yére jigéen mais ci jikko góor la boobu jigéen mooy jigéen joo xamante ni dafa yomb muy jël décision jigéen buy sëy nay moytu di jël décision parce que dafa am ku moom décision dafa am ku yilif ki yilif nag mu nga delloo ko lim moom waaye boo bëggee yow jigéen na ci kër gi bëgg di dogal wala lu ñu bëgg dogal nga xam lan la walla balaa ñoo dogal ñu laaj la walla balaa ñoo dogal nga ni waaw wala déet jigéen jooju ci problème lay dëkk soxna si fexeel jël kilifteef jox ko sa borom kër te nga noppal na ko joxe woon sa papa ba bu dogalee doo ci teg baat boo ko defee sa kanamu jëkkër rek ànd dana lan moo tax borom bi nee na ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa comme li ma waxoon ne jigéen bu mu bu fàttee ak njigéeneem mooy jigéen nekkatu fi góor a fi nekk jigéen jooju mooy jigéen ju bëgg a def jëkkëram moroom du ko nawloo en tant que kilifa mais da koy yore en tant que kii di dogal muy dogal su amee ci kër gi kër du am ñaari kilifa olof nee na ñaari kuy duñu bokk benn bagaan sa borom kër mooy yilif kon bàyyee ko dogal bi bàyyee ko dogal mooy sa borom kër mën na dogal sax lu dul noonu nga bàyyee ko ngir dégg ndigal gàcce du ci am xam nga tax gàcce du ci am bis bu ñu demee ba àggati bu ñu waxee nga daa man kat defuma woon kan moo def yow kon jigéen na moytu loolu na moytu di jël dogal waaye bokk na ci gaafu jigéen mooy bëgg dàggasante pour quoi lu tax léeg-léeg jigéen ñu bari dañuy xaw a am jafe-jafe sama jëkkër day jékki def nangam du ko yëg sama jëkkër day jékki def nangam du wax man erreur la ci góor mais bépp jigéen buy topp yii sa sëy du neex parce que góor gi nga nekkal. te muy kilifa imagine ñun jamono ba ñu jàng ustaas xam nga ni newuma loolu dëgg la walla du dëgg mais dañoo judd ci ñun fekk suñuy waajur dañuy dogal ci suñuy suñuy yaay kenn du ne ñemee teg kàddu ñun loolu lañ doon dund ñëw fekk rek paa bi day ñëw rek par exemple sa doom buy dem daara walla muy def leen mair bi day xëy ñëw rek ana diw ñu ne ko dem na lu mu cay boole teg ñaar waaye dañoo toll ci jamono boo xam ne jigéen di day bëgg su weer dee nga indi enveloppe bi taaj salaire baa ngi nii lan lañu ñu war a dugg mu toog nañ jënd ceeb nañ jënd di décider ci saleeru sa borom kër bépp jigéen bu teg loolu sa kanam mooy sa sëy day naqari sa borom kër bu ko nangoo tey ngir naïveté ëllëg dina ko dindi te bu ko dindee fitna am dafa am benn waay bu ma wax benn kàddu mu xeeboon kàddu gi waaye dafa dem ba mujj gi xam ne dëgg la mu ne ma oustaz oustaz yeey nga ma commerçant bu mag la soxna mooy comptabilité xam nga ci wàllu li de grandes faciles yi soxna si mooy comptable comme xaalis bi luy am dana ko xam mais yemul foofu nag dépense su kër gi yépp soxna si mooy gérer lu muy mooy dem di dugg di jël ci kees di def lépp bi ma ko xam ma ne ko sawaay yaa ngi def musiba de mu naa ma ne ah, ko lii nga def day lu baax la kóoru teef la mu ne ah, ma ne ko mais da ngay sóor ëllëg mu ne ah, ma ne ko seen wàllu liggéey comptabilité yu demee noonu war na koo mën a xam mais am na foo xam ni waru faa mën a àgg ndax jamono day dox de gis nga bi mu demee ba takk ñaareel ñun ñoo demoon takk bi may ñëwee laa ko ni changer méthode sinon sa kër tas mu ne ma oustaz mënatuma ko changé huit ans moo géré lépp ma ko sa tas taf nag te maa ngi lay waatal ne at boo ko amee ci sa ñaareel bi jàmbaar nga amul six mois sëy bi tas nee naa sëy bi defu ci six lan moo indi tasuk sëyam bi ñu demee di régler ji sëy bi yàlla dogal man dama bokk ci dem ndax moom lu muy def rek man lay jiital mais biñ demee li indi tas sëy bi mooy ñaareel bi nanguwul aaw bi di ko jox dépense te effectivement dëgg la dëgg la war a ko jox dépense ñaareel bi manqué lewul dara mi ngi koy defal lépp mais li mu mënta mu mooy moroomu jigéenam di ko jox dépense te bu koy jox dépense da cay yeneen kàddu te xam nga <laughs> jigéen dafa xaw a doy waar léeg di ko jox dépense ah, demoon fu ko mu naqari maa fi lif moom ku mu kii maa fi nàngam moroomu jigéenam mais mënul loolu waaw mais bi ñu demee ba papay ndaw si wax ñëpp wax ba ñu indi ndaw si defe naa mujj naa changer méthode changer méthode jigéen yilif na ku ne ba mu des moroomam wala fa koy wax waaye nag yar biy jubbanti jigéen moroomam la lépp boobu bu ñu paree bu ñu ma ko fàttalee ma firil leen ko jigéen yar bi koy jubbanti moroomam la mbokk yi dafa am lenn ci xokamaa yi ñu doon wax ni soo bëggee sa kër dëgër ñaar moytu ko mer fas nee na même boo amoon fas ci kër gi sax bul ni fas wi mais am na góor ñoo xam ne ñaari baat may naa sa baat fas naa la demal lan moo koy indi mooy gaaw a jël dogal ci jafe-jafe bu jafe-jafe amee rek génnal demal bul gaaw a jël dogal bul nangu mukk sa jabar bés la ci miiru may ma baat bu ko nangu léeg-léeg jigéen dina ñaan loo xam ne bu ñëwee mu toog jooy mais bu problème amee génnal nga dem innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab génnal demal bul nangu sa xol seytaane di wax ak yow naan la yambal nga pour quoi jigéen la naan waaye may ko bu la ñaanee may ko déedéet bu ko def dalal teer mbokk yi feebar bu ne am na saafara bokk na ci pour saafara suñu sëy yi mooy d'abord tànn soxna su baax yal nañ ko yàlla may xamuñu xay bu nag ay nit lañ mais bokk na ci yi ñuy xàmmee soxna su baax mooy soxna su am diine am yar suñu seen daara de noonu la ko doon tënkee nee na jigéen bu amee yar am diine rek baax na xool leen yar mi ci laxasu lépp ni mu toll mais bu ñàkkee yar même bu amee diine diine jooju ci weewam la nekk wewi mooy jigéen joo xam ne bu ngeen xuloo ñaari baat su xamee ne la lay naqar diine la mu jéggi ko sama benn xarit daa jot ak ndaw si te ndaw si xamut lu dul waa ji dafa bañ bopp neen suñ jotee rek mu tas kii rek sànni kaala gi sànni parce que xam na ne loolooy naqaru jëkk xoolal ma ki àgg fii nga xamante ni muuraay bi yàllaa ko santaane mais pour naqaral borom këram jaral na ko mu bafuwee sax ndigalal yàlla kon loolu góor gi na ko soo moo tax yonent bi noonu la yow góor gi fas far bi zaati diin tànnal borom diine waaye bokk na ci it nag góor gi it yow jigéen soo bëggee sëy bu dund te am barke façon góor ñii ñu lay wax ñu mën a muñ nekk ñu baax mënoo koo am mukk mukk mukk lu dul li man tardawna diinahu wa xuluqahu ngan la waay bul jiital coof ni ko ustaas waxe woon léegi jiitalal góor gu ragal yàlla góor gu ragal yàlla day rus ñu koy taat mook jabaram góor gu ragal yàlla day rus a téesante góor gu ragal yàlla day rus ñu di ko yedd ngir jagar waaye góor gu rafet jikko day rus soxnaam toog te du lekk te du naan même bu doon jaay brique wala muy dawal sareet wala muy jaay sotti jaral na ko ko mais xam na ni kii mu yore il faut mu toppatoo ko moo tax yonante bi uqiya jawaami'il kalim ñaari baat yi mu tënk rek ci la texe yam mooy am diine am jikko am diine am jikko bokk na ci jafe-jafe yooyu pour ñu mën koo dindi góor il faut nga nekk ku mën a politique bëri na ci góor ñoo xam ne dañoo gis ñu baax lool ci biti ci jàkka yi ci jumaa yi ci waxtaan yi mais ci biir këru sëy yi boo duggee koo ci wax ak soxnaam walla soxnaam wax ak yow da nga naan non lii du dëgg lii da koo sos léeg-léeg soxna yi wax la ci seen borom kër yoo xam ne danga naan est lii am na new ma nag lépp am na waaye léeg-léeg ñu wax loo xam ni yow dangay ngay jàpp lii warul am te pourtant góor gi mbaax bu nekk gis nga ko ci moom mais lan moo ko yóbbu ci suufe ba àgg fii waaye bëri na jigéen joo xam ni dem na ba mokkal alquran su solo mën naa àgg ci sax ba niqab bu ci biti boo ko gisee ragal yàlla da ngay gis te ci biir bu ñu la waxee kii mooy kan da ngay rus da naan non kii du ki may gis kii dañ ko métamorphosé kii beneen façon nit la mais lii ñu wax nii nekkul ci moom mbokk yi bokk na ci sëy yi pour ñu saafara ko mu baax nañu jël qaacida walahunna mithlu alladi alayhinna bil maaruf li nga yéene sa bopp bëggal ko sa bopp bëggal ko soxna sa rek lay tekki maanaam droit yi ngay laaj yow bóor joxe ko ba pare nga doog koo recevoir maanaam ni nga bëgg sa jabar mel mel ko d'abord soo ko melee rek incha allah moom dana ko mel ndax jigéen dafa bindoo koo xamante ni lu jëkkër mel noonu lay mel kon boo ko wanee ragal yàlla wan ko dal wan ko teey wan ko muñ wan ko kilifteef ba pare nag wan ko yërmande incha allah dana pare pour di la jéem a roy ci yooyu bokk na ci nga nekk góor gu mën baale di jéggale yenn njuumte yi mm-hmm. loolu moom bokk na ci xam nga am na ñoo xam ne dañuy kaasa kaas ba ci waañ bi ba ci waañ bi lu tax xoromoo lu tax xorom bi ëpp tax nangam contrôler bu contrôler waañ bi non gis nga li oustaz waxoon sànq ku topp rek gis kon muytul di topp yenn yi ñaareel bi desitu weccet bi anamu ah vingt cinq franc laaj nga moo xool lu tax nga jënd trente cinq franc laaj dafa yoo xam ni même boo toogee histoire am yow mënoo ko régler da ngay rus su mag ñi ñëwee nit ñi ñëw da nga rus a wax lu leen boole mm-hmm. lan moo leen boole vingt cinq franc laaj mu jënd trente cinq franc laaj walla dix mille <laughs> te loolu lépp li koy indi mooy suñu yenn étudiants yi tubaab yi nga xam ne lépp dañ koy bind dañu calculer laaj vingt cinq franc pomme bi teex cinquante franc calculer ñëw jox ko trois mille franc mu ñëw mu ñëw waroon laa delloo deux cent franc ñëw indi cinquante franc wala cent cinquante yi fu mu dugg amal grandeur dépasser yooyu da ko war a dépasser bi. bokk na ci nga yëg ni biir ànd xeebaate waru cee am laa yafraka mu'minun mu'mina jullit bu góor warul fereng jullit bu jigéen ku nekk ci nit ñi dafa am loo mën am loo tëne wallahi damay wax ni bokk na ci xikma yi tax yàlla may góor mu takk ñeenti soxna xam nga nit matul ci lépp matul ci lépp déedéet matul ci lépp moo tax jigéen di ñu bëgg su amee boroom kër mu góorgóorlu sàmm sëyam ndax lu mu mën dana mës a am ku ko gën a mën lu mu mën yàlla dafa bind jigéen ñi am na jigéen joo xam ni wallahi ladi laa ilaha gayru say gan yi lay seet si moo ci mën moo ci mën soo amee ay gan rek sa xol sedd dana toppatoo dana leen toppatoo te nit teraangaam mooy ay xaritam ganam ñëw kontaan loolu lu rëy am na koo xamante ni sa wàllu biir moo ci mën togg rek la mën togg li li gars yi naan fa togg jeexee fa la départ kooku day dem ba àgg ci du la laaj yow looy looy toggul waaw déedéet day xam li nga bëgg mu di ko def fu mu ko defee rek mu neex am na koo xamante ni lal bi bu ko lalee ah moo ci mën xoolal ma xikam yooyu du dajaloo ci benn jigéen pour lépp dajaloo ci benn jigéen déedéet loolu du nekk foofu nag la yàlla soxlaa maandu ndax li nga manqué fii am na loo am fële kon góor gi boo yoree soxna bokk na ci li ngay njëkk a daw mooy tagg beneen jigéen ci wetam loolu genre la ci xeebaate di tagg moroomam dafa bëri ci ñun koo xam ne nag ku am jabar yow xam nga ne sax pour nga am awo problème la waaye léegi boo takkee rek li ngay njëkk a waxtaanee moom ñaareel dangay dégg gars yi léegi ku ku génn waa bennoo rek fan la jëm non génn na léegi nekkatuma waa bennoo mooy benn jabar nag la am ku takk benn rek léegi sa xol ci ñaareel la jëm yooyu nag. kaf ci biir kaf mun nañ ko waxtaanee waaye ci biir jëf ku nekk na xool àttan du bopp yépp àttan mbir yi kon sa jabar bu ko xas ci lim mënul suulal ko ko waaye tagg ko ci lim mën dana tax mu mën a jéem li mu mënul boo ko taggee ci lim mën dana uti effort pour lim mënul mu jéem ko waaye boo ko xasee ci lim mënul danga ko wàcce surtout ci biiri nit na bokk na ci defoo góor yu bari musuñoo wax seen jabar togg bi neex na noo soxna si tey moom suñu benn paa nee na boo bëggee yore ay jabar il faut nga yore jikkoy naafeq nee na waxuma nga nekk naafeq mais il faut nga yore jikkoy naafeq koo aaye ci moom la ngeen séq na yem ci moom bul nangu mukk benn soxna bu ñëw di la waxal keneen parce que yaa aaye yemal ci sa ay këlee aaye na yem ci ayam noonu la ñuy régler kër waaye nga nekk ku mën a régler problème mën a régler situation benn waaye dafa toog ak soxnaam ñuy añ jigéen ñu façon ñu bëri wax ñu ndeysaan ñu baal ñuy añ ba jàgg soxna si ne ko nijaay yëg nga ni mbenn daa ëmb mbennay mbindaan bi mu ne ko problème am la continuer di añ mu toog ba ci yàgg soxna si dank dankaat ne ko dégg naa yaa ko ëmbal de mu ne ko sama problème la ñu continuer ba ci yàgg en tout cas man damay fay mu ne ko sa problème la sama ñoom papa sax mel na ñu ngi may xaar mu ne ko seen problème gis nga situation bi réglé na ko soxna si di ko xool di ko xool ba jàgg ne tek amatul fu mu jëm parce bunt yëpp baare na ko mbindaan bi daa ëmb problème am la yaa ko ëmbal sama problème la damay fay sa problème la sama papa mel na ci problème am la cest il faut nga am noo xam ne da koy gérer kër gi te it boole ca neex deret benn ji bokk na ci liy régler sëy mooy yërmande jàppal ni ki nga yore sa rakk la ndax sa palaasu rakk la yor ci yow li nga dul def sa rakk bu jigéen bu ko def rakki jàmbur bu ko ko def sa rakk bu jigéen buggoo mu am naqar buggoo mu am jafe-jafe buggoo mu rafle buggoo mu am fitna kon taxawal ci wetu sa jabar donte sax problème am na da ngay taxaw ci sa camp jabar taxawal ci camp ndax loolu lañ ko fi indi mais mu ñëw problème am nga féete ca kër ga bàyyi ko mu wéet loolu day indil jigéen jafe-jafe bu ko far ci tooñ waaye nag bu ñu ko tooñee taxawal taxawal xam ni yow yaa fiy ndeyam yaa fiy baayam yaa fiy léppam ba ci sa wayjur bu jote woon ak moom taxawal ci wetam maanaam boo taxawee ci dëgg soxna si dana sentir ne am naa koo xamante ni yëg na ma loolu mën naa tax sëy bi jaar yoon beneen bi bokk na ci jigéen bi pour sëyam neex il faut mu nangoo mu ñàkk ñàkk mooy noonu boroom kër mooy noonu soxna ñàkk moomu nga xamante ne nag fu nekk la mën a ñëw nañ ko sóor ndax am saxul waaye ñàkk saxul nañu sóor feebar nañu ko sóor nañu sóor feebar. ñàkk sawar. ñàkk sawar day am. ñàkk sawar day am. góor ñi léeg-léeg nga dem ba defe ne dañoo feebar. waaw te dara jotu leen dañu stressé rek. stressé nax leen rek. rek la demoon dina ñëwaat. dina ñëw bul yàkkamti bul jàmbat bul dem ci ay jibar nax ko rek. rek te dalal ko. encouragé ko li demoon dana ñëwaat ak lu leneen sax gis nga stressé moo gën a sérieux ci liy lor nit mbaa xam ngeen ni day xañ góor ngóora góor ñu bari tey tële nañ démb maa ngi nekkoon ci OGM mu xamante ne moom mooy légumes fruits yi gars yi di lekk léegi gis mu rafet lool ba maa ngi naan jigéen ñi yéen a ngi tas seen kër yi wallahi góor dina stressé wu trois mois six mois du mën dara bëri na ñoo xam ne danañ ma seet ci wax ba pare man ne la dara dalul wallahi dara te suñu waxtaanee maag yow mu yàgg rek da nga sentir ne dara dalul surtout ak dund bu seer gi jafe-jafe yi gis nga ko waaw gis nga bu dund seeree jafe-jafe am yow jigéen ji comprendre sa borom kër mais mais du baax xoola ma góor gi daw uti amul mu ñëw nga war koo accueillir yow jigéen dalal ko mais nga gën koo indi problème xoola yaa Xadija bi yonent bi jaaxle daf ko ne kallaa wallah laa yuxzika allahu abada non man sama góor loolu yàlla da ko ko teg melokaan yi nekk ci yow jikko ju baax ji dangay def lu baax ku am problème nga dimbali ko ku am bor nga fayal ko même boo amul nga daw jàppale ko pour mu am remonté ko remonté ko remonté ko ba yonent bi dal sallallahu alayhi wa mais jigéen bu melee nii ci kanamu jëkkëram sa jëkkër ñëw dara doxul nga daw ut loo ko jàppalee dalal ko ci xel nga jàppale ko su dee góor gu gore la waaye nag malheureusement du góor ñépp ngay gore ci seen wet tamit problème léeg-léeg jigéen daw wëq waxandeem yëkkati la mu doon nattee walla leneen lañu ko dénkoon réglé ko kër gi mais yow miy borom kër boo goree ragal yàlla mbañu rus bañ gàcce loo njëkk am ne ko dawal nga fàtte bunt boobu waaye yoreel sa jabar bor mu di la topp fay ma guddi fay ma bëccëg nangam nangam nangam nangam su yàggee jigéen ju du sawar daanaka su yàggee góor gi di sawar kon lu mel noonu góor gi na ci góor góorlu waaye jigéen ji ci côtéem ci liy defar sëy fexeel ba lépp lu neex sa jëkkër ci yi feeñ mën ko gis nga doxin sax day xëcc góor wallaahi góor dina xëy am am naqar jigéen ji daw solu dox romb ko rek mu fàtte ko mais loolu ci mokk pooju jigéen lay dellu kon maa ngi tënk ci wax ni sëy yi li koy defar du dara lu dul suñu diine bu diine amee rek lépp am moo xam ci góor gi la moo xam ci ku jigéen ki la noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal ñu nasr defal ñu yusru wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh